te contenu local ci tubaab mën nañ wax ne population yi askan bi lan lañ mën a jëlee ci xéewal yi nga xam ne mooy pétrole ak gaz bi nga xam ne mi ngi ci réew mi kon mën nañ tënk ne loolu mooy atelier bi kon nag man def naa environnement def naa économie solidaire kon am naa cër ci waxtaan bu mel nii buñ ma ci invité ma sawar ñëw ci rawatina réew mi yëpp xam nañ ne maa ngi doon yëngatu ci lu mel nii ba ma duggee aar bokk donte woon sax aw maag moom ñoom juboo ci yenn doxalin yi Euh, gëm ne dañu war a aar lii ñu bokk te muy pétrole bi ak gaz bi fexe ba lépp tegu ci yoon ñu séddale ko ci mandute ñëpp jot ci gis ci seen bopp. kon atelier bi bokk na ci loo xam ni euh, day wane gouvernement bi nu mu bëgg a doxalee euh, pour que askan gis boppam ci xéewal yi kon loolu moom fi indi te maa ngi ciy jàng lu bare bari. gis naa ni format boo xam ne la niñ ko tëralee. gouvernement bi moo woote tëralee ko nii kon duma leen wax lu tax ngeen tëralee ko nii xëy na suñ ma woowoon ne ma dañ bëgg a def waxtaan ci wel nii ma joxe sama xalaat mais gis naa ni euh, ba tey weesuwul euh, man am naa ay xalaat yu ma ci am ñu fexe ba waxtaan yu mel ni ñu wàcce ko ci nit ñi wàcce ko ci askan bi wàccee ko ci ñëpp rawatina euh, société civile di ko waxtaanee ci gox yi ci quartier yi fépp. parce que lii réew mi yëpp la yitteel boobaa man suñu ma laajee sama xalaat euh, mën naa ci joxe sama xalaat ci wàll boobu pour que waxtaan bi bañ a nekk rek benn euh, groupe ak ay expert ak ay ministre ak directeur agence ak programme yi mais mu nekk waxtaan bu citoyen boo xam ni euh, réew mi yëpp dañuy comprendre ñu wàccee ko tam ci langue nationale yi ñu dem Fuuta waxtaan ko fa ci tukulër waxtaan ko ci bawol ci wolof waxtaan ko ci mandeng yi waxtaan ko ci jola man noonu laa gisee nii waxtaan bi noonu la war a tasaaroo su ko defee ñàkk déggante yi ak malentendu yi Euh, mën fi jóge ndax ku nekk di nga xam bu baax a baax lii lan la boo d'accordul tam di nga di nga wax lu leer lu tax d'accordoo ñàkk d'accord bi dara nekku ci ci démocratie war nañ ko ñemee jarul ragal. est ah, kay voilà man kay suñ ma laajoon waxtaan yu mel nii euh, waratul yam ci affaire gouvernement bi rek ak ñenn ñu mu tànn. d'ailleurs président wax na sànq que ni COS Petrogaz dañ koy ubbil opposition ak société civile mais waroon nañ tàmbale déjà ci waxtaan bi. déjà ñu invité ci partie opposition yi xaw ma ndax invité nañu wala déet mais en tout cas waroon nañ leen ci invité. Euh, loolu la lépp lu jëm fi nekk nii ci pétrole ak gaz bi waratul nekk loo xam ni dafay am ñenn rek ñu koy waxtaanee ku nekk na ak sa cër ki nga li nga xam ni waxtaanu expert la dëgg la ñu nekk expert ñu koy waxtaane parce que boo indee koo xam ni euh, du expert euh, mën na ci am jafe-jafe wante waxtaan bi dañ ko war a yaatal ba ñëpp mën ci jot parti politique yi société civile gox yi communes yi goxaat yi euh, média yi euh, association jigéen ñi euh, religieux yi ñëpp xam lan moo xew laaj liñ ci bëgg a laaj ñu indi lan ay tontu pour man loolu moo gën a mën a dimbali président ci lépp loo xam ni mën na ko bett ci ay nit jékki-jékki fippu ndax dañu yaakaar dañ leen di nax wala fekk dañu xamul wala joxuñ leen information. d'accord ngay porte de voix assemblée nationale keroog gis nañu benn jëf yoo xam ne ñu bëri rafetlu wuñ ko mooy Ousmane les députés ñu génn bàyyi ñaawlu naa ko torop ba ma def xam nga damay def chronique i rajo le matin damay def benn waxtaan ci l'islam 10 minutes moom bii passé tey ci suba ku ko déglu moom laa def sama chronique ma ñaawlu ko lool wane ni dañu war a respecter bi nañ fàtte seen bopp te xam ne peuple bi lañ fa nekkal su ko defee euh, ñu bañ ay fayonteeg kii def na lii ma def lii nañ respecter charte assemblée nationale mooy benn député. amul droit raté benn session lu dul dafa am ngant mais damaa mere ñële ñii tekki wuñ dara duma ma leen faale loolu ñàkk respect la ci peuple bi ba pare ñàkk respect ci député parce que député bu fa nekk dañ ko war a jox cëram parce que peuple bee ko votel kon loolu nañ ko ko bàyyi xel su ko defee man euh, jàpp naa ni aussi bien Ousmane Sonko keneen député yi pour man dama leen renvoyer dos à dos ni ko français waxee parce que moom am na ay session yu mu boycotté bañ a tam duñ ñëw kon ñoom ñëpp lay rappeler à l'ordre xam ne lii kóllëre la bu nekk seen diggante ak peuple bi waaye itam seen diggante ak yàlla dañ leen di fay di leen jox ay ndàmpaay yoo xam ne ci turu peuple bi kon nañu bàyyi yooyu te dem lu xew nga ñëw wax sa xalaat mais boo nee luñ fa nar a wax du ma neex wala dama jëppi waa ji du dem loolu kenn kenn mës koo gis waaw kon nag euh, ñaawlu naa ko trop. Monsieur